ginaaw bi ñu jiitalee siyaar bi seex moom Cheikh Mouhamadoul taxa yàlla na fi yàgg loolu tànd ak wér euh, di siyaare Serigne Yaafi bu saal imaam euh, mi nga xam ne mooy jëwriñu daayira Muxaddamaatul Xidma bi nga xam ne moo yor jumaay Seexul Xaddim ji tey jii ñoo ngi fii ci kër Serigne Yaafi Bousso euh, ci teewaayu imaam sëñ Bousso bi Bousso mi nga xam ne moo nekk Paris ci kër Seexul Xaddim gi. ñu teewal fi nag waa fédération France bi yëpp itam ci njiital El Hadji Bamba Thiam euh, jataay bi tam li ko waral mooy liggéey bi nga xam ne moo jëm ci jumaay sëriñ tubaa ji te waa France di ko àndee ak daayira Muxaddamaatul Xidma Serigne Modou Kara Samb ñoom nekk ci bopp bi tey jii sunu jataay bi loolu moo ko waral fekk nañ fi tam sëñ di Moustapha Mbacké mi nga xam ne bokk na ci jëwriñ yi nga xam ne ñuy ànd di saytu liggéey bi. Euh, gannaaw bi ñu nuyoo ba noppi itam euh, jëwriñ yi ñu àndal sëriñ Cheikh Diouf lañ toogal nii euh, ñu bàyyi ko ba La Rochelle dëkk bu ñuy wax La Rochelle ci France ànd ak sëñ Magay Ñangit ak sëñ Pam Ndaw mi nga xam mooy taxawu liggéey bi ca Toulouse ak sëñ Sidi Diop ak sëñ Ibrahima Diop moom itam bàyyi ko ba Toulouse tey jii nag ñu ñëw ngir def nañ defoon ca koor ga Euh, liggéeyaat liggéey boo xam dafa jëmaat ci jumaa ji ci wàccaayu màggal gi moom lañ doon jëbbal si nisrin afi bu sa imaam biñ ko xoolee tamit euh, indi nañ fi lu toll ci quatre cent soixante quinze mille yoo xam ne jëbbal nañ ko sëriñ bu Bousso mu def ko ci liggéey bi nga xam ne mooy liggéeyu daayira bi nga xam mooy taxaw jumaa ji kon daal sëriñ Afia tey jii euh, waa Touba France ñoo ñëwaat nii àndaat ñëwaat ngir feddaliwaat sun laxasaay ci liggéey bi nga xam ne moo jëm ci jumaa ji euh, gannaaw bu ñu nuyoo rek dañuy jël kàddu yi jébbal ko imaam sëñ bu soobee bu ko defee mu wax ci turu euh, mbooloo mi nga xam ñoo àndoon buñ ñu noppee tam sëñ Cheikh Diouf mi nga xam ne tam euh, mi ngi nii toog ñu jox ko ak sëñ Pam Ndaw su ko defee sëñ Afe mën a yeewi mbooloo mi bisimilah. wasalaatu wasalaamu ala rasulillah salallahu alayhi wa ala alihi wa sahbi wa sallim noo ngi nuyu sëriñ Afia mi nga xam ne moo jëwriñu daayiratu Muxaddamatul Xidma di ko nuyu ci turu sunu mbokki taalib nekk France yëpp te sëriñ Assane Diop mi nga xam ne mooy seen ndaw foofu moom sax daanaka boo waxee rek doy na sëkk ndax taxawaayam moom rekk ab soññe la ñëpp xam nañ ko ci liggéey bi taxawaayam bi mu duggee France ak léegi lim ciy def lépp it daanaka doy na jëruñ sëkk rek jërul sax ñu ciy sori di wax yeneen wax xanaa rek dañ ci sos jokk rek ci yoo xam ne euh, fi nga xam ne noonu fa lañ féete muy kër Serigne Touba gi nga xam ne Cheikh Mouhamadou Mourtada moo ko fa digle woon tuddee ko jamiyatu taawuni ala taatillahi wa rasulihi mu lëkkale mboolem taalib yi nekk France yëpp ñu am kër nag ca Paris kër googee taxaw taxawaayu Touba murid yëpp di fa ñëw ñu am mboolem xeeti yëngu yi yëngu ci yoon wi yëpp ñu ko fay def ñoo ñëpp ah, yëg nañu liggéey bi ci am nañu fas yéene taxaw ci ndax bi sëñ aseen jógaatee ndaxam am nañ ko ba sëñ Modou Kara ñoom ci def liggéey yu am solo sëñ Modou Kara ñoom yaakaar naa xàmmee ngeen leen ñuy ñoo xam ne ñu ngi fi indi woon oto yi raxas lavageur yi lavage yi raxas karo yi ñoo ko fi indi ñoo fi indi it eh, yaakaar naa benn oto buy de kii manque indi nañ fi daal ay bagages yu bare bare yàgg nañ ko fi andi waaye bi sëñ Assane jógaatee nag soññee ñëpp dañoo jógaat euh, xamaat liggéey bi moo waral lii xam naa kanam la jëm nag sëñ Modou Kara nee nga woon mi ngi ñëw moom bu ñëwoon sax gën a mën a leeral ndax moom yàgg na koo jiite waaye ba tey jiit mu ngi ciy taxaw waaye rek sëñ Cheikh Diouf mi moom itam kone xam na ko France rawatina Paris googe ci kër Sëñ Tuubaa gi may wax ci jëwriña la bokk mooy bu teewee rek doy na seede ci ne mbokki taalib yi fa nekk yëpp muy mag ña ak ndaw ña kon yëg nañ ko bu dee ci province maanaam dëkk yi nekkul Paris it yi dul Paris it sunu mbokk yi fi teew jóge ci yeneen dëkk ca France ñoom it ay kilifa lañu fa kon jataay bi dafa mel ni xëy na euh, bëriwul waaye yaatu na ginnaaw loolu ndax kilifa yii yëpp kenn ku ne mbooloo mu baree baree bari nekk foofa buñ leen gisee ci lii rek dañ xam ne kon jóg jot na ndax xam nañ leen wóolu nañ leen fonk nañ leen ndax liggéey Sëriñ tubaab bu mën a doon rek ñoom ñii kenn ku ne ràññee nañ la ca suñu asan moom mu mu xadd Muxaddamatu Xidma moom buñ ko gisee rek xel dem ci kon yaakaar naa ne kon am nañ yaakaar ci ne dañ gën a jógaat lii moom xam naa ne ay tàmbali rekk la waaye ci kanam dana gën a àgg fuñ ko foogewutoon yaakaar naan incha allah suñu am di itam moom yàgg fa waaye xam nga ko jàmbaar la ndax xam na liggéey ba te it euh, ma nga foofa di yëngu ndax ci biir euh, kër Sëñ Tuubaa gi it ca jàkka jaak yëngu-yëngu yi ñu fay def yëpp it moom it da ciy bokk day dañoo ànd loolu mook mboolem ndaw yi nga xam ne jóge nañ fii dem foofa mboolem yi dëkk ci dëkk bi léegi ñu ngi def benn benn groupe lépp lu xew ci wàllu diine ci yoon wi dañ koy seq dañ koy seq kon moom itam mën naa teewal ñooñu kon daal jataay bi dafa mel ni euh, euh, ay kilifa yu am ginnaaw ñoo fi teew kon xam naa du ma guddal rek xanaa sëñ bi nga ñaanal leen Euh, yéene ji ñu am ci liggéey bi sëriñ bi jàppal leen ci di ñaanal du Modou Mountakha yàlla bàyyi ko fi lu yàgg-yàgg ñu yàgg ko liggéeyal yéen ñi nga xam ne yéen di jëwriñam tamit ngeen yàgg fi lool ñoo yàgg ànd yéen ci liggéey sëñ tubaab yi naka noon it liggéey ba ca àll ba it moog liggéey bi fii ñoo ñoo bokk rek kon lépp di lenn kon daal wax ji mooy lool rek kon ñu ngi sàkku ñaan rek di gërëm suñu asan di gërëm kilifa yi yëpp ci yittewoo gi ñu yittewoo mbirum sëriñ bi di ñu ci soññ sax ñun noo ànd ko it nag fas yéene di ci dox bu baax a baax a baax ba mu àgg foo xam ne daal dana mel ni dëkk yëpp dana mel ni France dana mel ni Amérique dana mel ni Espagne loolu am nañ ci yaakaar bu baax a baax a baax kon xam naa kon suñu asan kon ñu jox sëñ seex rek mu sànni ci kàddu moom itam yéene yi rek mooy. maanaam yëgle ne maanaam ñi fi teew teewaal nañ ñu baree bari joo xam ne buñ déggee seen kàddu rek dañ xam ne maanaam lu yittewoo mbirum France la waa France it euh, seeni jëwiñ teew nañ fi kon loolu yaakaar naa am na solo ok jërëjëf. ak sëñ Sidi Diop ndax yàlla dogal na bi ma ñëwee France ñoo ma dalal euh, bi ñu fa dalalee itam ci lañ woowaat mbooloo mi sampaat liggéey bi. ba sampal ko ay bis june am kenn ku ci ne loo mën a jàppee ci li jëm ci jumaa ji ba tey jii looloo tax liggéey bi yaatoo fa ñu fas yéene nag feddali laxasaay ngir yaatal ko ba liggéey bi gën a yokk ni ko sëñ mbusoo bi waxee kon sëñ seex Diouf xam naa ñu jébbal la kàddu gi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala sëñ bi noo ngi lay nuyu ci turu Euh, Rochefort ga ñu jóge ak La Rochelle ak euh, La Roche-sur-Yon ci njiital sëñ Sidi Diop mi toog euh, di la siyaar bu baax di la jaajëfal ci liggéey bi nga téyel sëñ bi mu mel ne bëgg nañ ci mbëgg moo xam ne amulu àpp ndax sëñ Tuubaa moom koo xam ne yaa ngi taxaw di ko defal lu mu mën a doon rek nun dañuy am mbégte moo xam ne duñ ko mën a euh, jëmmal waaye noo ngi ñaan suñ borom rek mu fayal nu la ci barke borom Touba mu mel ne ñun xam naa kon liñ ciy sos rek moom du li jëw yi ñuy wax lépp doy na xanaa ñun soññi rek soññee rek lañ ci sos mu mel ne euh, mbir la moo xam ne kon euh, jàpp nañ ne war nañ cee jaajuwaat euh, gën cee góorgóorlu kon maa ngi ciy woo La Rochelle Rochefort euh, La Roche-sur-Yon waa Nantes euh, Saint-Nazaire ak Quimper ci boor boobu ma nekk dëkk yooyu yëpp xam naa ne ay borom pas-pas ñoo fa nekk. maa ngi leen ci woo ak woo ak euh, Ross Bordé ñoom ñëpp ñi fa ne ay euh, euh, jëmm lañu yoo xam ne liggéeyal sëñ bi rek moo leen ñor loo leen ci woo ñu wuy si ci kon maa leen ciy woo bu baax a baax di leen ci soññ bu baax a baax am na sunu wëlëre bu nekk Boulogne-sur-Mer ci ci nord bi la nekk boori boori Lille borom pas-pas la moom itam dañ koy wax sëñ Basirou Diouf donc ci woo di ko ci soññi euh, bu ko defee mu nekkal nu ci booru euh, roche euh, booru noor boobu jàpp naa ne daal am nañ pos-posu buñ delloo kenn ku ci nekk nu jéem laa soññi ba liggéey bi gën a yaatu noo ci woo ñëpp rek bàyyiwuñ kenn bu mel ne sunu wëllëre sëñ naar ndaw ñu di ko wax murin ndaw te mu nekk Marseille Eh, yor eh, jiite eh, Kër Sëñ Touba diaspora bi ci woo di ko wax mu defal nañ ci ay soññee yoo xam ne dana woo mboolem ñu nekk France ñëpp ndax barab la boo xam ne ñu bari ñu nekk France te bari bari am pas-pas daan ci daan ci dugg di ko di ca xew di di ca di ca mën a jottali ak a yaatal mu mel ne barab boo xam ne ubbi woon nañ ko muy sax ci delloo njukkal euh, sëriñ bi itam ñi ci nekk te nekk France it maa ngi lañ ci soññi bu baax a baax ñoom ñëpp borom yi pas-pas lañu yu yu mag a mag kon daal euh, foofu rek lañ koy yemale te euh, ñaan suñu borom mu boole nu jàppale kàttanal nu ba yéene yëpp nu mën koo matale ci barke borom Touba. waaw baax jërëjëf sëñ Cheikh ci kàddu yi matale na sëkk kon xam naa waa tulus ñu ngi nii teew sëñ Afia sëñ Magay ñang mii Euh, ànd ak sëñ Pam Ndaw ak sëñ Ibrahima Diop ñu teewal fi itam waa tubaatul si yëpp sañ maam maam Menda mi jiite liggéey ba xam naa ñoom itam ñu ay jàmbaar nag ndax lu ñu woote rek ñoom wuy si nañ ci waaw ba ci liggéey bi yeeg moom bu ñu lu ñu woote ci jumaa ji rek seen jëf agsi na waaw kay te di ñaanal sëñ Mouhamadul Mountakha Mbacké bi nga xam ne moo fi sëriñ Touba suñ borom yàggal ko fi te wéral ko di ñaan sëñ Afib mi teen nga xam ne moom moo yal na ko fi suñ borom bàyyi suñ kanam wala lim ci namm ci liggéey sëñ Touba ci yoon wi suñ borom jàpp ko ko barke borom Touba. ñoo leen yéen mbokk taalibe yëpp ñun ay dongo yu nekk fee ci Touba Toulouse kii di sëñ Magay di suñ jëwrin di suñ kilifa. Mm, ba suñ sëñ mi waxee démb ne ma dañuy siyaar si laa ko oo téléphone ne ko kat nañu dajale sa ca jumaa ja ndax dañoo war a siyaar ji sëñ Afi ngir jébbal ko loolu nga xam ne liggéey boobu nga xam ne waa waa France def nañ ko kon nag euh, maanaam euh, xanaa di woote rek tey soññe rek maanaam ñun moom <laughs> daanaka wax wax moom dañ cee kii ba nga xam ne xanaa mbir mi yëpp mooy soññe rek euh, xam ne liggéey bii moom daanaka moom ku ci sëñ Tuubaa liggéey loo moom sant nga war a def. waaw ndax comme yàlla def na ca njëlbeen ga loolu nga xam ne mag ñu njëkk ña dajoon nañ ko ci ñun fekkewuñ ko te te te te mënuñ koy teen maanaam dabe gi mën mooy lii. Euh, li ñu li ñu sëñ Tuubaa di baaxee maanaam am nuñ ciy joxe ci mu jëm ci jumaa sëñ Tuubaa ji maanaam ak yokk toog dong lay doon waaye du du du leneen kon nag ñoom dañoo namm rek maanaam ndeysaan ngir ñu baax rek ndax jumaa ji ku ci def maanaam da ngay baax dong waaw kon nag lépp maanaam ak cant lay doon sëñ Asan ñu ngi leen di sant bu baax a baax baax bi ñu bi ñu soññee ndax maanaam soññ nga ci taalibe yëpp sant nañ la bu baax yow muy ku jar sant nga wax dëgg yàlla sant nañ la bu baax a baax a baax ndax maanaam lii nga euh, soññee ngir ñu barkelu ci ci liggéey bi maanaam mooy da ngaa namm ñu baax dong waaw nam namm maanaam euh, amurit saadix nga yal na yàlla taxawal yal na yàlla taxawal yal na yàlla taxawal barke borom Tuubaa jim bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi wa kafa wasalaamaani ala asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñuy eh, nuyu mboole mbokk yi nga xamante ne ñu ngi ñuy topp ak fu ngeen mën a nekk di seen sunu jëmm wala ngeen dégg kàddu yi eh, di leen nuyoo fii ci kanamu al imaam sëriñ Afia Bousso al nga xamante ne eh, mooy sunu kilifa di suñ suñ daara di suñu jëwriñ ci liggéey bi nga xamante ne. moom lañuy ànd ak moom di ko liggéey Sëñ Tuubaa fii jumaa ji te mu mat sëkk royukaay ci bëgg Sëñ Tuubaa ak euh, fàtte boppam fàtte léppam ngir liggéey Sëñ Tuubaa bi di ñëw waxtu wu nekk euh, xajoo lépp rek euh, ngir liggéey Sëñ Tuubaa bi ñoŋ rek képp koo xam ne gis na la nga ci yëngu itam ni mu jàppee boppam rek la lay jàppee te loolu bëgg mbëgg Sëñ Tuubaa ak Euh, jeexal gi mu jeexal léppam ci fa yéene koo liggéeyal moo ko waral ñu ngi koy ñaanal suñu boroom mu guddal fanam lool te may ko wér ba yaakaar yi sëñ Saaliwu moo ko tegoon ci jumaa ji ak mboolem kilifam yoo ko jiitu woon te ñu dénkoon leen liggéey bi yëpp yaakaar yooyu yàlla na ko yàlla dëggal mu sotti te bañ am benn ndokk ak benn bañ gàllankoor mboolem ñaan yu baax yi nga xam ne murid nga koy ñaan itam yàlla na yëpp nangu rek ñëpp ci bokk yéene di siyaar Mbusoobe mi nga xam ne mooy sunu jawriñ fële ca Touba France <clears throat> te moom itam yaatal ga mu am ci liggéey bi mi ngi koy junj léegi ci bi mu waxtaan <clears throat> ci mboolem ñi nga xam ne ñoo fa nekk te ñëpp ñii di ay jarbaatam ñii de ay ay doomam waaye ñëpp mu xëcc leen ci fa seen leen nàmmutal ci liggéey bi nga xam ne moom la ko Cheikh ma Mourtada dénkoon ñoom ñëpp itam kenn ku nekk mu lay soññi di taxaw taxawaay boo xam ne yow boo gisee rek na ngay daal di euh, yokkaat sa pastef kon moom ñu ngi koy ñaanal suñu borom itam mu taxawu ko taxawu njaboot gi ba liggéey boobu nga xam ne moom lay euh, namm ba mbooleem ñi nga xam ne ñoo fa nekk te ñu leen ni tuddee ay doomi soxna mu dajale leen ci ak kuréel ñoom ñëpp ñu dajaloo di liggéey suñ Tuubaa foofa ci xam-xam ak di soññante ak bokki taalibe yi loolu lu mënta ñàkk la foofu ci tubaa France te mi ngi ciy taxaw taxawaay bu am solo ñu koy seedeel Sëñ bu baax a baax Eh, loolu mbokki taalibe yi fa nekk moom umpale wuñ ko ci liggéey bu mag bi mu def ci mboole mbokki taalibe yëpp rek <coughs> di sant bu baax sëñ Cheikh Diouf mi nga xam ne moom moo féetewee ca Touba La Rochelle sëñ Seydou Diop eh, sëñ Maguèye ci waa waa Toulouse yëpp sëñ Ndaw Kondaa nga xam ne dama ne daa añ tey moo tax xam naa waxi waxi jum na lool <laughs> eh, xam naa rek di <coughs> liñ ciy tegaan mooy soññe yi ndax li ci sëñ bu sooy bi wax mu ne su kaa wax lu ko kawe Euh, mooy taxawaay bi nga xamante ne euh, muriti Sëñ Tuubaa yëpp war nañ koo taxaw ci liggéey Sëñ bu mag bi ndax kenn umpalewul ne jumaa ji moom ndigalal Sëñ Tuubaa loo xam ne dak fee bàyyi gannaaw euh, ñi nga xamante ne ñoo ko wuutu gannaaw bi yëpp def ci seen yitte ba mu egg fii mu egg tey bu sottee itam ba ne coleet ñu mën ci di julli laaj na ak sàmm laaj ak ay xayal waxtu wu nekk la fa nekk ñu koy ñu koy ñu bokk di ko sàmm rek te loolu ginnaaw ndigal Sëñ Tuubaa nekk warul ñenn ñu dul ñun murid yi kon war nañoo fexe ba ndigal Sëñ Tuubaa loola ñu ñu ñu def ko ndax euh, li Cheikh Bachir wax barki dem jumaa ji moom du fu ñu dàkkee sëriñ bi waaye fu ñu fekk sëñ bi la ndax ku fa ñëw liggéey ku fa jëf rek Sëñ koy gisal boppam te liggéey bi moom liggéey bu Sëñ Tuubaa nangu la liggéey boo xam ne fa Sëñ Tuubaa nekk nga koy defee fa yaakaari murid yëpp nekk foofu ku fay jëf sa xel war a dal waaye loo ci def war koo xeeb ndax Sëñ Tuubaa moo ñaanal boppam njëggalu yàlla mbooleem ñi nga xam ne dañuy taxaw ci tabax bi ba mu sotti wax fir li man banaw bina ahar rafia wax fir li man amarahum bihi jamia wax fir li kulli man aanahum ala bina ika alladi bi fadlika taala kon loolu ginnaaw suñ tubaaw nag mu yëkkati xalimaam te ñaanam ñun ñëpp xam nañ ne lu muy yaxal la rek waaye lu yàlla nangu la ba noppi buñ bëggee dégg dugg ca biir njëgal googu nga xam ne njëgal ci lépp nekk dañu fexe ba jëf ci liggéey bi jëf ci liggéey bi kon nag ni nga xam ne murid yi nekk Touba Amérique niñ góorgóorloo ba am ab fondation di euh, boole seen i addiya ak seen i taxawaay di ko indi ci jumaa ji liñ woo ñu koy xam lañ ca man ñu koy jëf mm, na nga xamante ne noonu la gën a rafetee waa Espagne itam am seen association boo xamante ne bu national la waa Touba Espagne yëpp ànd ca di ca liggéey ak jëwriñ Sëriñ Asan Jóob mi nga xam ne mooy coordinateur général bu euh, diaspora bi yëpp euh, taxawal taxawal fa loola waaye di coordonné itam mboolem Europe ak bitim réew yëpp waa France tamit kenn waru leen jiitu loola ndax loolu ndamal Sëriñ su fekkee ne français yi ñoom ñoo taxawoon ci fay liggéeyu Sëñ Tuubaa bii ànd ak moom fu nañu yóbbu ko fa ba mu am ndamam lu rëy lii dellu siwaat ndam loola la koy gën a jëmmal mooy murid ya fa Sëñ Tuubaa yabal ñu samp fa di fa liggéey lañ fay liggéey ñu gis ne jëmmal nañ fa Sëñ Tuubaa bu wér loolu liy gën a feeñal ndamu Sëñ Tuubaa la bokk kon loolu nag waa France kenn waru leen cee man kenn waru leen cee jiitu niñ koy liggéeyee Sëñ Bousso wax na ci eh, juñu ci lu bari ñoom sëñ Modou Kara ñi nga xam ne ñoo defoon ay seen i àndandoo di indi yooyu ñu indi euh, loolu itam daa war dañu war a fexe ba mu gën a structuré rek ñu ko gën a structuré fexe ba am association boo xamante ne daal des na ci mën a jaarale mboolem lu ñu ci bëgg a jaarale te di ci def communication bu mat sëkk ak ci fed mboolem fédération yi nga xamante ne am nañ ko mooy fédération nord est ouest ak fédération Île de France bi yëpp ñu fexe ba jok jokkaloo gi yëpp am ñu xam ne liggéey bii moom liggéey bu dàkk la te lépp lañ fi soxlawoo ndax li fi nekk yëpp murti suñ tubaay doo nga koy def waruñ cee xaar kenn te kenn jiituwuñu ci itam moo tax lañ man ca nekk foofa ñu fexe ba di ci feeñal suñu yéene luñ man loolu lu mënta ñàkk la yaakaar naa ci liggéey bi eh, comme ni suñu asan moom du jug di ci soññee moom ñun ñii sax dañ ciy soññ wax dëgg nag waaw di ko sant bu baax moom itam ci taxawaay boobu xam naa suñ tubaa ko ciy liggéeyloo rek yàlla na koo kattanal bu baax a baax suñu affaire daal loolu ñu ñu ngi ciy ñaan itam ànd koog yow bu baax a baax liggéey bi te nga ñaanal leen itam ñoom ñu nekk foofa Euh, suñ borom defal leen tawféex ba yéene ji ñu am ci liggéey suñ Tuubaa ñu mën koo liggéey te jaarale ko ci jumaa ji ndax jumaa ji moom yaakaaru na lool wax dëgg waaw kon xam naa ne sëñ Assane wàcc foofu kàddu yi incha allah jërëjëf tawféex incha allah salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatulah. Uh, jël kàddu gi nag jox ko sëñ Modou Kara Samb uh, ci kàddu yi nga xam ne imaam sëñ Mbusoobe jiitaloon na ko. Euh, ñun itam ñu indi woon ko ci taxawaayu waa France ci liggéey bi nga xam ne ñu ngi ko doon taxawu te tuddoon mboolem jumtukaay yi jiitu woon te indi woon ko muy matériel yi nga xam ne yëpp sañ bu soobee jaar na ci ma jaar ci muy machine lawaas yeeg margu beeg auto vidas yeeg ba ci koor gi ba ci màggal gi euh, kon sëñ Modou Kara mi nga xam ne euh, gannaaw yàlla damay wax ne fu liggéey bi egg ci France ñoom ñii la ko sëñ Touba xaasale ndax ñoo ko fa tàmbali soññee ci woote ci ba mbokk yu bari wisi ci ba tey jii euh, waa côté bii ñu bàyyi ko muy waa nant ak waa euh, Rossel ak Toulouse ak yenn dëkk yu ci bari feddliwaat nañ seen laxasaay ngir sóobuwaat ci liggéey bi kon dañuy jël kàddu yu mujj rek jox ko jëwriñ euh, mu indi rek kàddu yu cant ngërëm bisimilah sëñ Modou Kara salaamaaleykum wa rahmatullah mbokk taalibe mbokk jullit yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax a baax daanaka kàddu yu jiitu yëpp tënk na wax ji euh, ba tax na li ñuy wax it day tënku lool di kàddu yu cant ak ngërëm rek ak euh, fës yéenee gën a laxasaayu rek ànd ak euh, waa muxaddamatul xidma liggéey bi nga xamante ni liñ ci jot a def lépp ñu bañ koo gis bañ koo sax seen xam ne li ci am solo moom mooy ñaan la jiitu lépp sëriñ bi nangul na ko li nu dëdmal nag te eh, ni ko Serigne Assane junje am na ay liggéey yu taxaw yoo nga xamante ni warees na cee sóobu liggéey ji loolee nag ñun dëdmal ko te fas yéen ci def lu ñu mën ak lu ñu mënul ba ni ñu ko bëggee rek ñu mëne ko noonu kon daal kàddu yu soññee rek kàddu yu soññee la rek mbokk taalibe yi nekk France yëpp ak ñi fu waay mën a nekk rek ñu xam ni lu ci waay jëf rek eh, sa bopp nga ko jëfal te it rawatina ci jumaay Sëñ Tuubaa ji loolu moom ku am xaas ak ku am taw tawféex rek la yàlla di dimbali ba nga mën a jàpp ci liggéeyub jumaay sëñ Tuubaa ji nga xamante ni ba mu koy digle kenn ku ne déggoon na lam ca waxoon te loolee du dañ ba keroog àdduna di kon nag ñun ñi am taw tawféex man cee jëf ñu ngi ci soññee di ci woo mboole mbokk taalibe yi nekk France yëpp yëpp yëpp fu mën a ne ak it jéem a xoolaat liggéey bi nuñ koy gën a mën a saytoo ba nga xamante ni euh, dana gën a mën a nosu ba fu waay mën a nekk rek man cee jàpp loo ci bëgg a tàbbal ci liggéey bi nga mën koo def te doo ci am benn jafe-jafe doo ci am benn coono kon daal foofu la ñuy tënk kàddu yi rek di santaat bu baax a baax a baax a baax kilifa yu Muxaddamatul Xidma yëpp bàyyiwuñ kenn di beralik sant sëñ Assane nga xamante ni moom saa su mi ngi soññee suba ngoon ba bëccëg ñaan rek daje ceeg tawféexi sëriñ bi te yàgg fee ñëw yàgg fee indi ay liggéey te it di ñaan sëriñ bi nangul na ko. ñu ngi ziar ñëpp di jaajëfal ñëpp jërë ngeen jëf. kon ñu teewlu sëriñ Afi bu sa imaam. alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashraf al anbiya al mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa xadimi ajmain asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki taaliba yi kon ñu ngi leen di nuyu ci turu al cheikh Mouhamadul Muntaqa xafizahu llah wara ak ci turu mboolem maamari daayira Muxaddamatul Xidma di teg nuyoo bi ci loxoy sëñ Moussa mii ak sëñ Moustapha ak sëñ Assane mi nga xam ne moo nekk daayira bi ci lu génn réew mi ak réew bu man di doon te taxawaay ko sëkk di leen wax ne rek ñu ngi leen di jaajëfal bu baax ndax duñu wax ne yoon yu guleet la ndax lépp lu daara mos yëngu rek def nga seen seen jëf feeñ na ca kon yoon yi du wenn yoon ba tax na kon ñu ngi leen di sant ci li weesu bu baax di leen gërëm te di ñaanal di daal wax di taal itam loxo ni ñu ko waxee ndax jumaa ji moom liggéey bu dul àgg la boo xam ne fu mu toll rek may am luy soxlawoo ndax la murid mag boobu xam ne Cheikh Madul Fadal ba jumaa jàkkee tam def bayitam yooyee loolu dañ ci war a bari sëñ Tuubaa waa Mbàkke liggéey baa ngoog àgg na fii nag la toll fii nag jamono dafay toll ñu toll fekk ñu toll fekk yow te booba liggéey bi booba liggéey bi jumaa ji na loolu rafet na ci ci jamono yi mu tolloon mu ne ko fii nag jamono dafay toll ñu toll fekk yow waaye nag bu koy weesoo ñu koy weesuwaat jaral ngeen lu ko waaw te loolu yaakaar naa wax ju ndiwu la ndax boo léegi def na wadd nañ ko ay yoon yoon yoon yoon boo xoolee sax taxaguñu ko day mel ni nekkatu fi yax gi rek fi desoon waaye koddaay li moom daan waaw waaw yax yax yax baa ngoog koddaay koddaay ba fu mu rek ba fumu rek <laughs> waaw boo seetee ba wax léegi wadd nañ ay yoon yoon yu bari te lu lu ca lu ci dem rek lo loxo jëfital bi jëfital bi waaw lu ci mën di dem rek jëfital bi kon nag ñu ngi leen di dollee talal loxo di xam ne moo xam ne xidma dafa am responsabilité bu rëy boo xam ne dafa ne ci baatam ndax Cheikh Saliou Mbacké ci jamono la solo mu doole woon ko lool lu bari ci ay jëf mu dénk ko lu bari ba loo xam ne sax aju ci jumaa ji daanaka ko dénk gis nga armée leeg yu bëree bëri yoo xam ne da koy dénk yoo xam ne aju ci gis nga Cheikh Mountakha bi mu ñëwee màggal ko mbëgg lu bëree bari bari ci ci dox bu tax ci daayira la ko teg ak biir entretien yi ne ci biir jumaa ji ak yiñ ci warlul ci nga xam ne dañu ci biir day mag yoo xam ne dañu wér a dëkk yooyu yëpp di ay taxawaay yoo xam ne dafa am lu muy laaj te ñi fi nekk moom ah, yéene dañ am ak saytu mbir waaye waaye eh, seen poos bëriwul ba tax na ko dañuy xaar rek loxo yi ci biti bu ñëwee ñu tabal ci liggéey bi fu rek ñu eh, toog fa di xaarat leneen gannaaw bu ñu defee seen kàttan ba jeex kon nag ñu xamal ñëpp ni daal euh, ñu ngi réer seen liggéey rek bu baax te di ko naw te di ko rafet te ñaan sëñ Tuubaa nangu lépp waaye liggéey bi moom daf jeex day liggéey bu jeex liggéey bu yaatu boo xam ne jamono yu nekk rek am am am lu ñu war a def waaye jamono yi um soxla la amul. jamono nekk daal am na am na programme boo xam ne ñu ngi ci kanamam te mënagu mënagu ca dara mënagu ca dara hmm, ndax fi nekk am na ay. ay ay ay ay nisar yu bëree bëri yu ne yoo xam ne yu daal di war def yoo xam ne mën ko jaa seq bu jéego ngir dara da ca àggut waaw nga xam ne fi mu toll nag fi mu toll lay jëfee waaye nisar yooyu itam ñu yaakaar ne incha allah bu mm, yaatu gënee am rek mm, lépp dana sotti ndax ni nga ko waxee léegi fédération bi nekk waaw Amérique mbooloo yi ñooñu takk ko képp ñuy yaakaar ne France kenn du ci man ndax seen jàmbaar xam nañ ci dama bëgg demu te it yaakaar naa jàmbaar xit ma dem na fa muy sëñ Assane moom fu mu dem fu ne rek yaakaar naa dana yëg ni euh, tey jàmbaar mu ngi fi ndax moom sëñ bi mooy añam mooy reeram mooy ndikkee mooy ñu mu nekk sax ci ci biti dañu wax ne moom sëñ Assane moom li njaaxal mooy fu mu jël lu muy lekk fu muy dund sax fu ko jëlee xamee ko ndax moom xëy ba ngoonte lépp ci sëñ la wala ci nag wér goo xam ne seen i benn dina bu ci waaye def day damay téléphoné bu jokkaan maa kooku waaw waaw dina bu ci waaye def day diw sangam ci diw sangam yoo nangam numéro ngi nii waaw dan la woo su toogee tam wóoru mu ne ma jox numéro <laughs> ngir bëgg li muy def rek waaye boo gisee résultat bi mu ci am loola ko ko waaw waaw résultat bi mu ci am wér rek ko waaw wér ak dëggu moo ko mën nañu wax ne tam mbooloo mépp tam noonu lañ mel dafa féete ci côté boobu nag moo tax jëfam fees waaye mbooloo yëpp borom positif lañ ñu am passeport liggéey sëñ bi sëñ bi lañu kon yàlla sëñ bi gàttanul boppam fi tële yàlla fa sëñ bi féete waaw suñu xeex suñu gont yàlla nekk ci moom waaye moom itam fa waroon ko gont yàlla fa féete barkeel njaboot gi barkeel yëngutu yi saafara ragg yi ñu koy ñaan mu def ko ci ku nekk ci anam gam la gën a loolu moo doon kàddu yi suñu asan kon ñu ngi nuyu mbokk yi leen dénkaan tam suñu mbokk yi nga xam ne dañ faa féete te doon doon doon lenn ci ñu nekk fii nga xam ne ñu jëwriñ wax nañ jëwriñ fii rek ñoo xaajuloo lenn nekk foofa muy muy tawfeex muy tawfeex daayira bi ndax ñi fii ak ñi foofa benn lañu kon ku jokk ñoo rek mën nga ñàkk a jokkoo ak waa fii kon ñu ngi koy jéem a a coordonné ak ñoom bu waax a baax rek waaw di jë di watal di wax itam boo da nga ko ñuy dégg ne suñu asan rek ni ñu ko tege woon ci bopp Espagne liggéeyam di dox ba rafet ndax réew mu ci dugg mën rek wax nañ moo ko ci dugal xam nañ moo ko réew moo xam ne dugg na ci te jarul ci asal waaw ci wax ak yow mu ko mu dagg biyam dem ba tax réew mu ci dugg rek yàlla ko ne ci taxawam taxawam nga ci duggee kon ñi ngi koy sambaat di ko dëgëral ci kanam réew yëpp xam ni fépp foofu rek daal tuma xadim solo waaw lépp loo xam daal waaye bëgg na ko xam wacce ko moom da nga ko xam lépp lu laa teg ci loxoom boo jokkoo ak moom dana ñëw lépp loo bëgg a indi itam boo jokkoo dana wax fi may jaar moom ñëw ci liggéey bi lépp dana leer incha allahu taala kon ñu ngi leen di sant ñu leen di gërëm ñu leen di ñaanal dama sëñ tu ak tawfeexam waaleykum <laughs> waaw kon kàddu yooyu rek mooy yi xam ne moo jóge ci sëñ Afi bu sa imaam ak euh, bokk yi nga xam ñoo jëkk a jël kàddu imaam sañ bu sobe ba ci sëñ Amdi Moustapha Euh, kàddu yi sëñ Afia waxee nag ñun ñëpp dégg nañ ko woowaat nañ taalibay sëñ Touba yëpp ci liggéey bi euh, te it wax na ne daayira bi tam am na ay mébét yu bari ci kanam yoo xam ne yitte la yitte ji nag gi ci gi ci gën a taxaw fi mu toll nii mooy matériel bu jëm ci tàpp yi ndax tàpp yi barki dem sëñ bi daa joxe ndigal waa Espagne ñu lal ko te biñ ko lalee ba mu daj barabu sëñ Tuubaa beeg yokk yeeg biir gi fépp eh, daayira bi tam soxla na ay jumtukaay yoo xam ne sëñ ab daal yëkkati woon na ay kàddu yooyu ci kanamu sëñ Bass Abdou Khadir eh, ne dañoo soxla matériel yoo xam mooy saytuwaat tàpp muy ay machine lavage yoo xam day jëm ci liggéey boobu ba ci camion boo xam ne tamit day doon camion boo xam ne camion mbalit lay doon boo xam ne day wër li wër urumu jumaa ji xam naa ci doon matériel moom lu gën a moo ci gën ndax tàpp yi am foo xam ne bu bu bu ko xasee jiitu rek pour ñu dawaat ko dana jafe moo tam jël ko ci bees bees bi rek ba nga xam ne doon not loolu moom ci doon sàkku ba tax daal moom lu mu gën a gaaw rek moo ñu gënal ndax day àgg fa foo si àgg rek pour ñu jëlaat ko dana jafe waaw ñu bëgg bare màgg wala mu def daal rek waaw ñu jiital ko ba nga xam ne waaw kon sëñ Cheikh ndigal laa ngoog woowaat nañ ci ñëpp rek waa jaajëfal ñëpp nag ci liggéey bi waaw yàlla nañ ci dajeeg nag barki waq di awaay jële si na daamoo fi xidmati bi ab lahum maaraamoo inna si na saarahon li xidmati fa lahumu diyaar wasal jannati képp koo xam ne rek jëfoon nga ci wala nga yenn ci rek yàlla na ñaan gi dal ci sa kaw jaajëfal na ñëpp ci tur sëñ Afee Buso ak imaam bu Buso Bay mii toog ak sëñ Amdi Moustapha ak sëñ Modou Kara Samb mi nga xam ne euh, mooy jëwriñu liggéey bi ويسرا صباحي في إخدام خير الورى بدا وفي كل شهر زيد ربحي وفي صفر